maanaam damay am mbégte lool ci di fi ñëw ànd ak Mouhamadul Mourtada nga xam ne moo bokk ci a haut conseiller bi saytu wàllu diine ci Mauritanie ak Cheikh Mouhamadul Mekki di kenn ci Cheikh Sidi Ahmed Lesmouhou e sunu sunu digganteeg yoonu murit yàgg na ndax xam nga Baara Mbiiti Fall Mouhamad Lamine Baara 1900 faatu dafa bokk ci taalibe yu mag yi kon boog suñu lii la meññ li mu meññ daanaka tabaarkàlla adduna bi yëpp ci jëriñu tey ñi ngi fii ci université bi nga xamante nii moom la Cheikh Mouhamadoul Mountakha ubbil maamam Cheikh du Bamba Khadim Rasoul di ko ñaanal suñ borom yàggal ko fi te wér lépp lu am mu sëñ Mountakha def na ko ci dëkku maamam bi waxuma dëkku maamam bi sax yam ci def na ko ci adduna bi yëpp sëñ mu yàlla na fi yàgg loolu te wér université boo xamante nii daanaka bam ko dalee léegi daanaka quatre ans la toll cinq ans yi sax matul noonu kooku kenn du moom université nag bu njëkk daanañ ko xamee ay état xeet yu mel noonu bii nag sëñ Mountakha ko fi def mel moom kase waaw ak taalibey sëñ Touba yi 37 milliards la def ci ñoo ngi ñaan ci doole sëñ Touba mboolem loo xamante ni rek mi ngi fi ci ay nit yàlla na ko ci atam ci barki sëñ Touba kooku jara ñaanal la yàlla na de mboolem lu fi faneetar mbaa nga fi doon weñ rek